mawliduhu muasamu mubaarakun muhtaramu taasimuhu yanatimu ala sawi taqaddumi loolu jarul sori Cheikh Moussa daf ñoo yeewi yeewi gi ñu yeewi daf ñoo <laughs> mag ñee dégg maa ngi jéggul nag waxin la Cissé Ngaari Sénat Omar fi ñu toll nii yaa fi yaa fi xalifa bi yaa fi Sénat Alioune doomu Cheikh saa ngi dama xam ne duggee ci moom bëgg naa bëgg boo xam ne damay gàmm waaye daaru dañuy gàmm daaru ñooy gàmm foofu ñëpp fa lañ waroon a dem mu ne day ñëw mu ne mu ne waa daaru maa ngi dem daaru moo maa ngi dem daaru man nu mu damaa toog yàlla gis ko te ñoom suñu mbégte lañu mooy caatu Cheikh Moussa caatu Cheikh Moussa bu góor a ngi nii Cheikh Moussa si ñambe borom daaru caatu Cheikh Moussa bu jigéen ñi nii yaa na bu siisee Muhammad sallallahu alayhi wa sallam doon def muy boroom guddi gii boroom bës bii lu mu doon def jële jaay mi ci lëndëm yóbbu leen ci lan mooy yonent ma tax Cheikh Idi wax nga dëgg dëkk bi doy na waar lan mooy yonent mooy mooy dëgg ak njub dëgg ak njub té ab dëkk bu démé ba dëgg ak njub amatu dëkk bobu lu jëra tital la dafa am sama benn dëkkandoo ki ki ma doon waxtaan euh, euh, sama waajee moy ibrahim Sam ki kii doon tudd suñu benn dëkkandoo benn dëkkandoom la ndeysaan da da tok rek ñoo xam ne wuñ ci dara ñu ñu samp seen mag rek seen benn mbokk bu sori lañ samp ministre rek ñetti fan ñepp dawal ay ay ay huit huit loolu loolu xam na loolu day na war ñëpp di dawal ay huit huit dëkk boobu fu mu jëm Cheikh Moussa Cissé yàlla ko yàlla fayal mu ne lu ma Cissé lu ma askanu Cissé tekkiwul ne déedéet dégg ngeen dafa ñëw pour li yàq jamono mu xam ko di ko dindi ndax loolu moo yàq jamono loolu moo yàq jamono ndax bu fekkee ne àndoog nit te yàlla tax ki nga xam ne dafa ànd ak nit te yàlla tax dana xam nañu ànd ci yàlla xamul mbokk xamul yaay xamul baay xamul rakk xamul kenn xamul ku mu xam ku mu àndal pas-pas pas-pas la xam ñu ànd ci yàlla tax waaye dëkk boo xam ne boo santee sàll sa boo nekkee jarbaat boo nekkee ndijaay boo santee Mbàkke boo santee si boo santee caw boo santul yooyu ñii ñooy kaye ba faw ñuy suufee dëkk boobu jar naa tiit Sénégal dem nañ ba lu ma mosut gis am na fi joolaak pël ko ma séeréer rek tukkuloo an université ñuy xeex bay rayante te loolu mosu am Sénégal nga bëgg a rayante Cheikh Moussa mooy defar jamono wallaahi Cheikh Idi wax nga dëgg ana lu koy defar yonent bi fii la dëkk fii la jamono tolloon mu fekk aada yu doy waar mu indi dëgg njub waaye amaale fulla ak fayda nekk benn nit fa tabaarakallaahu ku rëy wala ku diis ñu ne ma ñu ne ma déedéet mën ñu ko def mën na ko mën na ko mën na ko mën na ko ruudee feebar te loolu mooy feebaru xol te te xoolal jamono xoolal jamono amal bët rek xool internet bi ngeen di wax lii am lépp Sénégal lii am lépp Sénégal te xalifa yaa ngi fi na xus waaye ndeysaan fa tabaarakallaahu fa ñu foofu mbir mi moo tax am ngeen liggéey am liggéey mooy lan mooy da nekk dafa nekk benn désert benn désert xam li doon yonent Yàlla Ibrahima moo ñu ko war a dal tuuti fa tubaarakallaahu dem fekk benn àll ay xeer kese mu dëkk fa moom laa doon waxtaan sànq ay xeer mu dëkk fa xam nga lu koy lu koy maye ay xeer te moom ah te moom mi ngi gis benn oasis ci biir foofu maanaam benn benn benn jaaru géej de dex bu am ay garab am lépp ci biir àll gi ba li nga yor xam-xam bii mooy defar jàmm xam-xam bii mooy defar xolu jàmm bu jullee yàlla nangu bu wooree mu baax bu la téye koo mu baax du fen du jëw du mën a jël paakaam di jam moroomam doo tegalee kaar mu war na la li ma yéene sama bopp laa la yéene wallaay ndeysaan boo tegalee kaar mu waat ne li mu yéene boppam la yéene te loolu mooy defar jamono te loolu nguur a mënuñu ko ku ci nekk boo toogee li nga yéene sa bopp yéene ko sa famille yéene ko sa askan yéene ko sa xeet boo nekkee tukulóor sax boo ñëwee da nga man tukulóor laa waa Fuuta la waa Fuuta laa waa Fuuta ñu votel ma ngeen yaakaar ne réew moomu ku si tiitul fu ñu jëm ku si tiitul fu ñu ah ci moment boobu nag ci waxtu woowu la waraat defaat conscient nit day day yor xool li mu yor lan la wallaahi ndeysaan nit su ko yàlla defalee da tax yàgg mu mu génn li yor gëkk dafay gëkk gëkk téye ko xool moo Gueye moo duggee moo Gueye nii xam nga ne xam nga ne moo Gueye booy yëngatu di cëfër cëfër lii du yow njàmbe la te njàmbe moom mooy Seexu naa Seex Asan nii ni ma mel moom ko koñ bi xam nañ ma ne man man grève rek laa xamoon bi ak cëpp cëpp rek sol costume ak sol pantalon Ibrahima ni sama promotionnaire la maa moom ñoo bokkoon benn classe di jàngandoo du ma du génn pré wala dees ngi nii moo génn grève nag maa ngi fi dàq maa ngi moom dañuy toog sax affaire yi neex ñu donc ñu bëgg kii rek na nañ grève te dana xaw <laughs> kon mbir mi am na lu xew gi nag xam lu mu lay may fulla ak fayda ak fit ak njom ak kóllëre loola lay may te loolu su ko jaam amut jaam boobu mënta defaru jaam boobu mënta defar am réew te xam nga réew moom fu ñuy mujjee li Cheikh Fall doon wax bu ñu ba ci jëm jamono mu ne bu ñu ba ci jëm ak jamono doo ko binde mu ne mu dëkk bi ndaw yi xam nga ñu fi nekkee wangeetu ak fecc ak a wangeetu ak loolu lañu fi nekk te boobaa ñooy nekk xaritu ñëpp mu ne réew moom ñu ñàkk fayda rek ñoo fi nekk léegi xoolal nag réew mi kenn moo fi am ful la ñu ñàkk fayda rek lañuy ñuy gëm te nee na Serapha nee ñu gën a ñàkk fayda jamono boobu amul ndax ñooñu ñooñu la ñuy bëgg ñooñu bëgg ñooñu rek la ñuy bëgg boo boo mënee way wala nga nekk comédien rek léegi nga am ay millions léegi nga am ay millions nit ñëpp lay bëgg diw diw diw te Serapha nee na wan nga ci rajo xam nga wax ne mooy li ñuy def léegi mooy ñoo ñoo ñàkk ñoo ñoo ñàkk fayda xam nga lu muy tekki ne jamono ñi fi nekk ñëpp ñu ëpp ci nit ñi dañoo ñàkk fayda mais benn waaye daa ko dégg mu koy wax mu nekk wax bu am solo mun a Cheikh Fall ko bind su ko defee mu nekk mission bu doy waar lu ñu yor te mu wóor ñu ne wallahi la si laa ilaha illa huwa li fi ne buñ ci bàyyiwul xel dëggantaan def li ñu doon màkk def waaye li ñu doon la def li ñu doon màkk def fekk aada yooyu aada yooyu la fekkoon ci réew te réew mu aada yooyu am yàgg fa sax fa bu yàggee nit ñi la ñuy fit ndax dañuy jël ñuy teg ci kaw jël ñuy teg ci suuf di exploité nii ñuy ñuy mel neneen loolu mooy am man ak Cheikh Moussa bi mu ñëwee dafa comprendre ñun xam nañ ne amuñu bëggewuñu lu dul njabootu Cheikh Moussa da leen di bëggee deen ormal mais dafa am fulla mu ne sëriñ Touba ci boppam sama sëriñ la waaye jaamuwuma ko lu ma ko wante mooy sama sëriñ wala bu tukkuwaat ne wooteelu ma siise wooteelu ma askanu siise yàlla rek laay wooteel loolu dafa am leçon bu doy waar bu ci Cheikh Moussa jàngale jamono moo toll foo xam ne boo xoolee ñoom dañuy defar man suñu taal bi mu ñëwee loola ama doom ama jarbaat dafa am lu ñu bëgg a jàngale parce que liñ doon bañ moo fi ñëwaat mi pàcc pàcc yii Mbàkke si caw ñoo fi gën ku santul nii bokkoo fii fi ñu nii saam tukuleere ak tukuleere ak de ak ak <laughs> jeex na fuñ jëm moo ceci explique cela moo waral li ngay gis léegi da gis léegi nag yonent bi mooy lan ana kan moo am fitu taxaw wax buur dëgg ni ko Ibrahima defoon ci Namrood ni ko yonent bi dafa woon jamono ñi ñu mu fekkeel wax leen dëgg nekk kenn toog ci dëgg wax leen dëgg xeex ñoom te am wóolu wóolu mooy nga xam ab àll la waaye nga gis fa am ndox ki garab lu mu yàgg yàgg loolu da moo feeñ yëmbal fii waaw loolu xam mooy lan mooy wóolu ab àll nga toog fa di daw gisoo ay xeer nga toog fa loolu mooy wóolu xam-xam bii mooy defar jaam képp ku xam yàlla sa xol day set xolu jaam du set mukk ci xii la xaala wala jàng ay téere wala julli wala woor baax na lool baax na lool su may mbokk baax na lool waaye xoolaat leen ay waay Cheikh Chérif li nga wax am na solo te ñun ñëpp loolu ñu daal ñun ñëpp nag moo tax waaye nag fa tabaarakallaahu dangay waxtaane benn waaye bu mu yàgg rek ma ne ko ah sëñ bi doy na waar waaye nekkate yoo jàmbaar amut yaa fus am kuñ dimbalee am kuñ dimbal rek moo am da ngay gis saay-saay boobu bu doy waar nekk ci mbedd mi taxawaal ma gis koo xam ne day day def lu ko neex Macky na teg naa ci loxo loolu mooy lan mooy am kilifa ñi mu amee si saayir bi noonu la amee ci baatin bi nag benn baat benn baat ñu ngi koy tàllal jaam yi képp koo xam ne xam na ko wuy si ak jamoon ni mu demee ak jamono ni mu lëndëme soo ko wiisee muy baatub laa ilaaha illallaah ma tax ndeysaan Cheikh Moussa Ba waa ji na ko baat bi baat bi na xam bu ko xamal xale yi mu na ko yàlla digalu ma loolu yàlla digalu ma loolu yàlla digalu ma loolu ndax xam na xale fi ñu toll mooy gis nga cëppi cëppi beeg dal bi ba pare xam loo xam ne bu ñu tegee seen bu ñu yëkkati seen tànk aras jaay yi suy yëngu loolu doy waar dama loolu laa la rek loo xawal lu la rek ma ne doomu Cheikh Idy bi xamal na maa la yow dooy ñëwee ñooy ñëwee yëmbal ñëw si koñ bi juddoo fi yaroo fi rek ñëw benn bés naan ab ab yarant laa gars yi moom waaw yow géej na la foo foo ñoo dàkk jullee fi ne ñooy dàkk a fi ne ñooy dàkk tumburum koor a fi ne ñu ne ëpp alal fi ne xam ne lii domb na la ndimbalu yàlla kese la si daraja yi suñu sang naa Cheikh Assane Diouf kon dañuy ñaanal a yi jaam yi bëgg nañu yàlla de xoolal na ñoo xam ne jóge nañ fi ne xamuñu ma sax duñ samay taal day ñëw te dëkk bi noonu la tëddee yàlla ñuy wut waaye ndeysaan mbir mi mooy fañ ko foog demewul noonu sëriñ doo dafa taw ba mu yàgg mu ne ba doo jël xam-xam jox ko ñu njëkk ñu bàyyi ñu mujj ñi doo leen jël xam-xam jox ko ñu ñu bàyyi ñu mujj ñi noonu soo ko defee da ngeen di patt de da ngeen di patt gars yi dañoo ñëw rek jël ay dara bi benn waaye dafa ñëw rek ne na ko mu wax la mu ne ko ay dara sëñ Tuubaa amoon na fulla nag fulla mais léegi dañ leen sant wa ma ne ma ne géey ñu ne ma non da ngay làqatu sa sëñ bi Fall la wala Mbàkke la loolu mais force ma ne géey laa sant ñu ne ma non sant Mbàkke Mbàkke wala ñas ñas wala Fall Fall mu ne lii métti na man man mënumaa doon xalaat sëriñ luy sëriñ man ma mën jàpp nit dindi si moom rëy may médecin dindi si moom rëy opéré ko xaa loolay sëriñ loolu bu dul sëriñ luy sëriñ sëriñ mooy kii raxas xolu jaam ba mu set mu def ci moom léegi dina ko suuf yóbbu ko ci moom fu kawe ba mu jomba def dara am fulla am fayda am fit am jom ci yàlla ngi la yonent bi yaroon ñu fekk ay aada yu doy waaye baat bi lañ doon tàllal wax leen laa ilaaha illallaah ñoom dama nañ ba jël jaas yi jaas yi waxal laa nga bañ ñu dog sa ñu dog la moo tax ñun li ñuy wax rëyul yenn saa yi nga sa taalibe dañuy wax dafa rëy yéen dafa jël jaasi waxal laa ilaaha illallah soo ko waxul ñu rey la ñu ne ñu ngi koy wax mais li ñuy wax gëmuñu ko ñu bari ñu koy wax waaye wallaahi dafa métti dafa nakaree wax waaye waaye dee nañ bu yàgg de Sëriñ Tuubaa nee na ci Masaalikul Jinaan te nee na moom waxu ko de Imaam Maalik moo ko wax nee na képp koo xam ne arab bi moom mën naa ko dama wax نسي مسال دكو جنان العلم خلماني العلم عند العلماء يلسيم لساهر وباس دي سرن كوتو مسلم مسلمه للاهمال والباط مسلمه مسلم مجي دوما كاي عرب دابا سو مو عرب اي اولاف نغا يو سرن توالا نا واخول كو موم كون امام مالك نوكو واخ امام مالك نانا كيب وو خامنا جان نا شريا با سو كول سر خام مولا سي مي نيو جولي مي نوار نتو مودوم كول جنا بو مجي تي سو كول بي ساتو كول بي ساتو كول بي ساتو nee na nee boo deewee dem sawara képp koo xam ne nag def def nga nii nii mooy ni ñuy wax ñii duñ julli duñu woor Baay Faal yi duñ julli nga def nii ñu ne kii de du julli du woor nee na nit ñi nee na ñu yéefar nga waaye bu dee sa xol bi set na fa yàlla yaay julli piir waaw xanaa du sëriñ mooy kii raxas xol xanaa du yonent bi dañ ko raxas xol xolam bi waa léegi ne yow sëriñ yaa ma neex rek wala askan wi wala nangam wala nangam moo tax fa tabaarakallaahu jamono Cheikh Idi li nga wax lu am solo la day na waar fi ñu toll yéeme na waaye Cheikh Moussa mooy solution bi ñu xam li ñu yor te wóolu ko te xam ne àll boo xam ne oasis mi ngi ci biiram mais wóolu rek xam-xam bi nag bari na koy wax te wóolu ko bari na ko am te. li sëriñ fi wax bu toogee kii da koy wax mais lii la jaam yëpp di wër lii la jaam yi di wër képp ku xamul lii mën na ko defal yàlla lu mu nangu jàngal junni téere demal màkka xam ma lay wax bala nga may jaam xam ma ba pare moo tax dañ naan li ñuy wax dafa diis diisul de diisul yeneen tib danaan wax xamal yàlla force force ngay xam wala ma rey la parce que moo boo xamul yàlla mënoo defal yàlla lu mu nangu su may mbokk nañu dellu si war xel yi ah man de damay kontaan di sant maa gis sama dëkkandoo ne le Cheikh Pape Ndiaye ñu def lu rafet yëmbal ay dëkkandoo yu baax la am ubbi nañ seen kër yi ubbi seen xol yi nit ñi yàlla lañ bëgg dañ maa bëgg ba mu jéggi dayoo dañu maa defal sax teraanga ma am samay carte ndeysaan rus koo rus leen koy jox ñu ñoom ñëpp ñu ñëw te Pam Ndiaye moo ko moo ko dox yàlla na yàlla gërëm fa Cheikh sama rakk la ma kontaan bëgg nañ yàlla de waaye li li li mu Moussa wax rek naan xeebuñ ñu sama xe laay laay laa kenn sama njëmm si lañ xeeb léegi nag gars yi déedéet xeebuñ ñu sama njëmm si de njëmm si moom xeebuñ ñu ko xeebuñ ñu ko waaye léegi xam nga la mooy problème mooy fi jamono toll mbir mbaax fii lay nekk mën ta nekk fii médecin lii la gars yi ne ma loolu mën ta nekk ma ne ko yow sa doom bu juddee jàngul médecin dina doon médecin mënoo ma ma ne ko léegi loolu lañ bëgg a def moo tax jamono su may mbokk fu lu la ma ne la Cheikh Moussa bu ñu soxla ñu tàntal ko fépp xam na ne mooy mooy soo adduna bi yonent bi loolu la du luñ koy foog waxtaan ci yonent bi mooy waxtaan ci yàlla du ñu ñaar lenn la moo tax boo nee yonent laa warul jaaxal nit ñi ndax yonent deewul sëñ Tuubaa nee na la nekk yonent ba nekkoon Màkka jëlee naa ko Màkka indi ko Tuubaa kataba laahu taala yi ana bayti laa tadxulu Màkka wa tadxulu malaa'ikatu wa fiihi rasulullaahi sallallaahu alayhi wa sallam ilaa Tuubaa mu ne màkk jël naa kaaba ga ak mbóot ma ak rasulullaay indi ko Touba te murit bu dem aji nga ne ana kaaba ga mu a gisuma ko ana rasulullaay mu a gisuma ko dañu wax dañu wax dëgg Cheikh Ahmed mi ngi koy wax nee na gisoon ko ak maamam maamam jën na àdduna six cent soixante-dix xaw ma ñaata Lamine Sène du fi nekkoon jàppale ma ah mu mu ñëw ñëw nekk sama maam moo ma xamal yàlla yeneen gi bi laata seeral Sëriñ Tuubaa bind na ko fi arrêté nii siira rasulullaahi wax qaala laa ilaaha illallaah yeneen bi doon wax yàllaa ma yónni ñu ne loola yàlla wax leen laa ilaaha illallaah ko wax laa ilaaha illallaah ba sa xol bi set séeram araamal na safara booy génn àdduna sax kenn la ko jullil dañ naan dañuy wax sa kalam laa ilaaha illallaah laa ilaaha illallaah laa ilaaha illallaah ngir ko mën koo wax soo waxee ñu ne mucc la waaw baat boobu ku koy wax ba pare ne la kaay ma xamal la ci secret boo xam ne soo ko xamee da wóor ne dangay taxaw ne billaahi wallaahi taalaahi sama yaram araamal na safara bàkkaar moo tollu yóbbu sawara moo tax mu doy waar Cheikh Moussa Ba dal ñu ko yàlla fayal moo tax ndeysaan ñuy baax lool am ngor am coloré xam ne guddi bi yonent lañu tàntal yonent bi lañu tàntal ku lab ci yonent bi ci yàlla nga lab mooy li ñu def yëpp ñu ñu ngi fëgg ñu ngi julli ñu ngi def salaatu ala nabi muy julli gu mag gi li ñu def yëpp mooy salaatu ala gu mag gi di ne salaatu mooy julli bi ñu ne mooy julli bi waaye mooy mooy mooy li Cheikh Moussa bëgg ñu tàngal ko fépp te yéen def ngeen ittee def pas-pas wala loolu kon nag ñu jeexal ñu def yàlla gërëm mooy ay salaatu ala nabi jàng alquran wàcc ay tey mooy yéen ñi ngeen def ba yëkkate lii ba mën a wax ngëneelu baatub laa ilaaha illallaah kon fa tabaarakallaahu jaa ngeen jëf Cheikh Idi moom ma dugal foofu rek damay bañ a xaabaabal ndax daa am ci kàddu gi may waxee te mi ngi ci ginnaaw moom moom branché rek kàddoom laay waxee bi samay wax de damay jéem kii nii rek waaw am ay kilifa nag suñu kilifa dafay nekk di Cheikh naa Cheikh Assane Diouf ànd ak kilifaam di Cheikh Samba Diop ay doom doomu Cheikh Moussa ñëw toog defal ma lu ma neex ma ne ma ko Cissé ñun suñu bu ñu defee lii ba kii te gisuñu leen du ñu am lu ñu neex lii lii def naa. mawliduhu mu'asamu mubarakun muhtaramu تعصيمه ينعتم على سوء التقدم